wooy doyal nañ ci yéen réew bëgg jooy ngir yéen ñaari nit donc bëgg fee lëmbe wuy sama ndey leen ñibbi waaye ay ca leen ne doyal nañu si yéen xoolal bu leen fi ñëwati yéen na ngeen leen doyal nañ si ñaar dërëm a ngi waaye gana Thiès yéen na ngi ñibbi wuy sama nday ñoom de ñuy ñibbi ah waaw Aline waaye kan tu tukkulóor waaye kan jàllu tukkulóor alira seen bur dellu gede borom MGK borom laadum yu baax yi kenn du yow ci mim réew barki yonent bi waa Aline ci loo ne boole nga maag Bachir Kane ah ñaata nga jox basir waxal ñaata nga ko jox rek affaire la affaire la jox nga ko 10 ticket waaw kay xam nga basir daf ma yapp mën nga ko jox 10 ticket mu kobat 10 yi lepp di tok di ma seetaan wala mu kobat gatt gatt fin daf ma yapp non la non la may def chaque jour waaw kay waaw waaw kaaw kaw ñu ne kaa ngi nii <laughs> ah ma jox ko ci deux mille cinq cent ci cent mille yi waaw koy jërëjëf deux mille cinq cent déedéet déedéet déedéet waxul loolu dafa tuuti waaw deux waxul loolu waay vingt nga jog ma eh, wala cinquante deux mille cinq <laughs> mënuloo ci xaalis moom mënuloo ci service waaye loolu yëpp waxuma hmm. li ma gën a ñor du xaalis bi lan la dama bëgg ne xale yi waxtaan naa ak oustaz ba pare mu ne ma indi leen wax naa leen sax ne leen dañu njool sax mu ne loolu garaawul tànka yi gudd la rek naa leen indi ñu jàng arab soo ko deful kër gii duñu noppal doo noppal duma noppal sooda du noppal euh, noo wéy de kinne du noppal léegi nag bu ñu demee arab nga xam ne suñu wàccee midi une heure añ mor dalawaati nañu arab euh, gaaw waaw xale yii xajuñu ci arab ñii seen i yeel mat na seen i tëstan mat na sëg gune yi boo leen yóbbee ca daara ji au lieu que sëriñ bi jàngal ñoom ñooy jàngal sëriñ bi di dóor sëriñ bi te nag indi gune yi ba fii yóbbu leen ci daaru nuy dóor sëriñ bi man loolu problème yooyu xaju ma xam nga lan la taal su tëwee boy fu ne lañ koy ubbi wax naa la nag saa yu mën a waxee nga la ñii nii nii pour lan il faut ñu xool solution. waaw solution bi lan la daara. waaw ñi ñi ñi weesu nañu daara. woowal ma leen ma yóbbu leen daara jeex na. yaay engagé jeex na maa jëli engagement. lu la ci fekk yow normal. c'est prêt. ah ñëwal ñu ñëw normal amul wax dërëm ah. Euh, woo leen ñu ñëw. ñanko ñanko. Euh, manumbe manumbe. Eh, génn leen fii yéen. Ndombe génn leen fii waaw yaa ngi engagé ah jàppale ma rek déet man kay jàppale ma jàppale eh, eh, eh, sa insomnie bi sa insomnie bi dimbali ñu ci waay dimbali ah ho ho man sa insomnie bi rek moom barki rosoolu la ah yow eh lan la eh lan la fay fay ça va. Oh la ñàkk waaw ma jàmm tey dama ñëwoon <laughs> pour wax leen rek. Hmm. ah euh, xam nga jàng dafa baax si xale. Hmm. jàng dafa baax si xale. Hmm. te bu jàngee. te ngeen di am xam-xam. dëgg la te ngeen di xam lan mooy farala. dëgg la ak sunna. di ngeen mun a xam lan mooy yàlla. ak yeneen tamit di ngeen xam lan mooy tooñ. ak lu dul tooñ di ngeen xam lu baax. ak di ngeen xam lu bon. <laughs> loolu moo te daal ma demoon gisoon ustaas bi. waxtaan. ma ko dafa am suma ñaari jarbaatu dóoróom la sama jarbaat la. Mhm, benn la rek waaw. léegi nag dama bëggoon indi leen mu ne ma waaw ñëwal nee naa ko nag xaw na njool tuuti sax mu ne ma jàngat du wees. du wees du wees même ah, loolu ma ne comme nag jàngat du wees ah <laughs> léegi <laughs> ñu waxtaan ak seen nijaay. ngeen ñëw ñu dem daara ngeen dem daara. ñu dem daara waaw daara waaw. waaw garaawul. ah mun ngeen de ah. ah waaw waaw waaw lii lii waaw lii moom bett na. ñoom nangu nañu jàng yow nga ni nangu wul jàng. loolu <laughs> ñoo bëgg jàng de. ah waaw ah kay. ah, ah. jàng la lañ bëgg. xoolal loolu. ñoo bëgg jàng sax sa wax ah. sax mënu ma ba rek ah kañ la ñuy jàng. ah ah waaw. ndeysaan daf ah! yow am yow yow moom ku am xalaat nga. moo gën ci kër gi rek. ah moo gën toog kër gi rek. Oh, oh, oh, waaye yéen dawloo ngeen sama yaram waay mooy taarara. ah daala arab ñoo bokk ndey amul jàng ay français anglais. français bi soo jàngee daara bi. ak arab bi. ba kanam. ñu door a dugg bi. daara bi dafay am dem yelwaani déedéet déedéet da ngeen di wàcc ñu doon dañuy wàcc ñu añee fii lekk fii ba suur ngeen delluwaat ngeen dem loolu koy baax na mais foofu dinañ fa jàngale tôlier ma koy fee ay ay yooyu wala am gars yi foofu nekkul parc waaw waaw dama lay laaj lañ lay jàngal yooyu yëpp. yooyu dama lay laaj nag wax na baax na. <laughs> mais douze yi c'est am na ay douze kan. waaw am na ay douze non dama may. kon waaw parce que saa waay saa waay moom day foofu rek comme. foofu oh, foo amee dama def waay yow. ah eh. waaw fu am jaar kay dina am douze am lépp. waaw waaw am na yow lay laajal de. ma ne ko saa boobu laay laajal. waaw waaw sa bopp ngay laajal. yow ngay wékk ci man toujours waaye sa bopp ngay laajal. léegi yéen day laajal ko moom day laajal la yow yëpp amul solo. yow foofu ngay foofu wala foofu wala fi ngay fi ngay ñëw di foofu yow. non moom demul de. yéen ah. dégg dërëm. dërëm fala laay wal xam. nañ dem nañ dem fala laay wal xam. dem daal dégg nga man man. waaw du ñu tàgg suñu tànk yi wax dëgg garaawul ala problème. góorgóorlu leen. voilà. tàggool wax bu ngeen demee nag. Ah. ngeen xam li ngeen di wax. Ah, yow yow yow yow suñu waxee baa waxal baa kii wax baa siin ñu jàngoon nañu si Dakar moo wax fii kii wax fii moo wax fii wallaay waay waay ku ngeen nangoo jàng arab alhamdulilah waaw waaw gérer rek ah ma ne gérer gérer gérer rek waaw ah, gérer rek yàlla baax na la ilaha illallah dama kaa yërëm te demaguma fenn jëm nee naa la yaay tay baas yaay tay baas yaay tay mi ñu tànnee ci yoonu Mali yaay tay baas ñaanal ko jërëjëf borom tawféex jërëjëf borom tawféex borom wuuf comme baax yaa def lii lépp waaw gis xale yi jàngi nañu daara man daal kaaw ma fekk fii ne ma dërëm faw ñu wut solution ci xale yi ndax xale yi fi mu ne nii tojaange gu ñoo ngi koy def ci dëkk bi li ci doon sama xalaat mooy ma yóbbu leen daara ma ne ko daara. fii yoon fii waaw yow ay wax rek <laughs> yow nga lay déglu ay waay boo demee booy wax def conférence nga def <laughs> yaa ngi ma <laughs> ah. ah, a ah. na oh ci ponk yu jëm seeni yel na ca kaw kaaw na daara rek wax naa wax a wax a wax kaaw na daara mën a ko yóbbul fi mu ne am na xale yóbbu na leen daara kaaw lu tax mu dooj kaaw di dina marine lax na salaat xale yi dañ leen bàyyi ci dëkk bi ñu def ay agent Senelec di wër di compter potu lampe yi loolu loolu arrangé bi lu muy wuti ay daara loolu de laa ko wax ayo dina terroriser borom daara ji barki rasulullah nee ko au ko sëriñ bi di len jangal ñom ñoy jangal gune di len ñom ñoy jangal sëriñ bi di duma di duma walé xalé man sax baax na man bru bi sama doom bi tout temps su déggé bru day tepp di tepp rek di tiit di nañ dem ndeysaan ay nitu sheytane lan wa jox ma hmm? ñu dem marché mo faté na la bayil sa dépense Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 650. Hmm? dépense waxuma la ay njëgu xorom ak yooyu dépense damay dem marché. dépense laa la jox man kay waxuma la njëgu njëgu xorom di jar juróom xorom juróom lay jar. dërëm. Hmm? góor loxoom day huilé ni diw machine sa loxo yi diw ci diw machine yow sa lépp a cëkk sa lépp a cëkk. ki ne <laughs> sama lépp a cëkk. ah ah, ah la cëkk. waaw ak yii xam nga ne nii doxul 650 man man déjà ñaari nit laa. waaw yow sa biir. ñeneen ñaan ñi seen biir ne bayal ko jaan man lii fu ma ko jëmee. waaw géré rek ko waaw jàpp ci yow yi déeduma ci jàpp. jàpp ci rek affaire la jàpp ci rek def ci lu neex rek ah. lu neex jeex na. lu neex ma def ko ci. waaw d'accord lu ma la tegal nangul. nag tegal ma lu baax de. waaw d'accord ceeb baax na mais dinaa ko sóor ak ndox def ci xorom tegal la ko yaag say njaboot ngeen lekk. loolooy puuj paaj. yow puuj paaj nga fi wax benn lekk yàpp gëj lekk ginnaaw. jeere xale baa ngi nii manqué na vitamine. waaw jeere rek ki ma puuj paaje ma puuj sa kër gi ni mu ne selaw. laa ilaha illallah. dëkk ñaari booy ñëw yëngaloon kër gi. nga xam naa ne. ki Yeah, you